agressé rek fu ne lañ lay jaar nag foofu foogul sax ñu ngi la fay jaar. mais ñu ngi ci doon wax euh, bërki démb ñu ngi doon wax xale yi euh, seen drogue bi ñu utiliser ci école yi tey ñu ngi duggaat ci affaire fee xam ne lesbienne ak yooyu ci biir yi donc waa ci lycée yooyu kañ la ñuy am diplôme merci beaucoup léegi éducation bi ñu doon wuti ci école yi tey jii leneen lañ fay wuti est-ce que dina encourager les parents ñuy bàyyi seen i doom ñu dem ci école yi waaye parents yee jabar a jiitu ngaan encourager ñoom dañoo defoon état bi jurul ngéntewul yaa njëkk a jur yaa ngénte yaa takk jabar yaa jur yaa ngénte yaay koy defar ci kër gi ba pare soo ko yóbbul état bi ci école yi état bi tam agir foofu. am ah, âge parents yi parfois ñu sonn yi parfois ñu sonn seen i kër xale yi génn ñu vite fait ñu changé leen wala ñu. def amul parfois da ngaa war a sonn tout temps pour bu ñu màggee nga noppalu tout temps boo deful le contraire rek boo màggee tey ba keroog ngay dee da nga gis ñu lay gàcceel loolu rek la de tout temps da nga war a sonn pour noppalu ëllëg en ah, tout temps bu ko defee état bi jël wàll mbir mi mu ngi ni ay joxante yi lenge la ngay def. jox état mu def bu ci kenn nag sooxe état surtout aussi enseignement beeg surveillance geeg système bi ñu indiwaat ful la jëwoon jàngalekat yu am na xam ñi ma sax sol ñëw di jaar sa kanamu <laughs> instituteur wala sa professeur mais boo nekkee jàngalekat bu ñàkk fayda ay jumbax awuta ki ay portable ak yow sax léeg-léeg nga laaj xale yi seen numéro loolu il faut que autorité bi waxuma ñëpp nag parce que souvent mhm. mais li ci mhm. bon parce que koor yëpp am lu bon mhm. koo fii tudd muy ngalang ngalang yi yëkkati làmmiñ foog ni fii amul kenn ku fi nekk wàllu yu koor bu ne am na la ciy sooxe dañ koy dagg sànni ci àll ba am na ci yu bon jàngalekat yoo xamante ni bu ñu waxee naan jàngalekat bu ëmbal élève yooyu aussi c'est à nañ ko waxtaane pourquoi du ñu ko waxtaane am réew yi ca baax da koy jël teg ci wet ga di indi yeneen teg ca kaw donc yow bon kay ngay waxtaane mais as boo seen association yi jug ne waaw ñun du ñun sama yoon newu ci penc mi ma intéressé ak li nga xamante ni mooy li may def ak yow toujours lan moo leen ci mën a génne yéen ndaw ñi ba ngeen tekki ëllëg mm. bañ a doon ay mm. sagari nit mm-hmm. man loolooy sama problème. du mm. <laughs> ay association de. Mm. association am nañ ci droit waaw et cetera et mais loo ci dégg rek mooy na état bi xoolaat système mu njàngale mi lycée yi avant ba ñuy nekk lycée